bismillah kon ñu fàttali ne ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy jawharun nafis nga xam ne moom it Cheikh Ahmadou Bamba moo ko def woy ko ginnaaw boo xam ne Abdourahman al Akhdari defoon na ko wesar muy téere bu am solo jëm ci fiq ñu tolloon ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi de waxee delloo ay tooñaange nit ki su fekkee yoral na mbokkum jullitam ay àq na nga xam ne na la ko ko war a delloo moom lanaan naan wa hakada raddu almadalimi jamia yuaddu min shurutiha inda almuti li annahu fardun fa man tarakahu muxafifan faqad asa malikahu wax na dëgg leen wa hakada ndaka noonu raddul mazalimi delloo ay tooñaange jamiun mboole seen moom it yoo addu def lim min shurutiha mu bokk ci sarti tuub indal mutii fa aji topp ja nee na bokk na ci sarti tuub delloo ay tooñaange xam nga dafa la doon jàngal tuub ci bind bi nga romb sa digganteek sa boroom waaye mu ne sa digganteek sa moroom mat naa bàyyi xel ba lu dox sa digganteek moom nga yewenal ko kon delloo ay tooñaange ci sarti tuub nee ci la bokk li ànd na ngir naka moom fardun farata la fa man koo xam ne tarakahu bàyyi na ko mu fan mbir muy aji woyofal ko kon faqad asa mooy na malikuhu boroomam nee na dellooy tooñaange day képp ko ko woyofal sax mu doon ak mooy yàlla ci yow ndax suñ borom moo digle ak maandu kon nit war naa maandu ci digganteem ak mbokkam lu ci am ci tooñaange war na ko jéem a yéwénal loolu nag la sëñ bi jàngale ci bind bi ñuy jëm moo tax ma ne sumal mazalimu topp ngi yooyu nag atat dikk na xismay ni di ñaari xaaj am waalan ay alal enradan ak loo xam ne loo teg ci deru nit lay doon bi xayri may ni ci ludul nar bu ne am waal mooy alali nit joo jël te waxee alal nag du rek weccet ci poos waaye nit boo jëlee ay dàllam boo jëlee yéreem boo jëlee otoom boo jëlee këram lépp rek alal la tudd ci alalam la bokk su ne enrad nag mooy loo teg cib deram kàddu yu rafetut nga teg ko cib deram loo xam ne boo ko déggoon du ko neex bi xëyri may ni ci lu dul nar dina tooñaange dañ ko séddale ci ñaari xaaj yooyu li nga xam ne alalam la ak li nga xam ne cib deram nga ko dégg lu ci nekk xeetu tooñaange la falyardil amwaala lil bi in wujudu dahra bil bi suma isaalam yujudu juddoo fal yardudi li waarisihim bila taraddudi nee na fal yardudi na delloo al amwaala alal ya lil arbaabi ñeel seeni boroom in wujjidoo ndem fekkeef na leen addahra jamono bilartiyaa bi ci lu dul sikk sàkk nee na su fekkee tooñaay nga alal la ko yomb na ndax su fekkee ña ko yoreloon ñi ngi dund dañoo bëgg nee nga dem ko kenn ku la ko yoreloon rek nga dem fay ko teewul nag su fekkee na nga ko yoreloon alal ja ci jubadi la mel ne da nga ko sàccoon wala nga luubal ko ci moom ci anam goo xam ne sax moom xamu ko woon te bëgg nga koo delloo alalam te xañ na bu xamee ne danga koo sàccoon amaana sax duutu la maye nañ nga delloo ko ko ci anam goo xam ne xañ na dana ànd ak sutura wan ko ne rek maanaam sa àq la. benn sax mën nga koo jox sox ci anam goo xam ne day mel ne danga nga ko ko may ci kaw te du tee ko jibloo delloo ak xam ndax na ko ko yorele woon moom xamu ko moo la ci ëpp solo rek àqam moom na delluwaat ci moom comme nag xañ na na nga ko jële woon juba jële goo xam ne bëggoo caa feeñal sa bopp bëgg nga ci sutura mën nga koo joxe noo xam ne naa jàpp ne yow da nga ko may rek te fekk da nga ko jibloo jox àqam ja nga xam ne moom nga ko yoreloon fekk ne bor la nag boo ko yore wala lu xamoon la moom dañ dañ caa tëddoon rek kooku moom da koy delloo rek wan ko ne jamono moo ma jàppoon rek waaye ñu ngi jéglu bu baax yàgg yi ci suñ loxo ndax xañ na bëggewuñ ko woon noonu su ko defee jéem koo delloo alalam loolu mooy koo yoreel alal te fekk mi ngi dund mi ngi dund te yaa ngi ko man te mën nga mën nga koo gis maanaam mi ngi dund te réeru la ci kaw suuf xam nga fu mu nekk loolu mooy in wujjudu dahra bil artiyaa bi mu teg ci nag ne suma isaalam yu jëdu topp ndem fekkee fi leen jamono kon fal yard dina ko delloo liwaari siihim ñeel seen way ndono mooy ña leen dond bañ faatoo bilaa taraddudi ci ludul déngi déngi nee su fekkee ñi nga yoroon alal ji ñoom dañoo faatu waaye nag bàyyi nañ fi njaboot goo xam ne bañ faatoo ñoo ñaa leen dond nee na ñooñu ngay delloo alal ji bu ñoo it bu fekkee ne na nga jëlee woon alal gi moom itam ak luubu la lu mel ne càcc wala yu mel noonu ba tey foofu it mën nga faa suturaal sa bopp rek wan leen ni daal lii moom maa ko yore loon seen baay lu ma séqoon ak moom la te amaana sax lébalu ko woon da nga koo jëloon ci xañ na ci luubu waaye nga wan leen ni àq la joo ne maa ko yore loon seen waajur naqari jamono it xañ na moo taxoon fay siwuma ko woon ba tey waaye daal moom mi ngi nii su ko defee delloo leen ko ñoom ñooña nga xam ne ñoo ko doon ba mu faatoo ñooñ ngay jox alal ji su fekkee moom mi ngi ko yore loon moom dundatul loolu mooy su ma isaalam yuy juddoo topp ne fekkee fi leen jamono fal yardu di mu delloo ko li waari siihim ñeel seen way ndono bilaa taraddudi ci lu dul déngi déngi kon wax na alal daal ñi ngi ko yoreel ñi ngi dund mu ne demal nga jox leen ko dundatul nee na nga xool njabootam gam bàyyi nga jox leen ko mu des nag su fekkee dundatul te gisoo benn mbokkam moo ko mën a jox xamatoo ci moom dara te xamoo menn mbokkam moo xam ne war nga ko mën a jox alal ji ne ko lii maa ko loon sa baay wala yu mel noonu loolu la naan suma isaalam yuy juddu topp ndem fekkee fu leen nag kon tusut di xasar xeef xanhum walis leen bihaa ci alal jooju daane leen ne kasaan yi mu ko waxee nag xakaa la ko nettilee man ka nga xam ne xaqaqa dëggal na muy abdurahman moomu mu ne nag su fekkee ñoom ki nga yoroon alal ji nekkatu fi te gisoo menn mbokkam moo ko mën a jox neen da nga koy sarxeel alal ji da nga koy sarxeel alal ji ñi nga yore leen àq daal te xamatoo ci ñoom dara xamoo seen menn mbokk da nga yëkkati lu toll ne la nga leen yore loon rek nga sarxeel leen ko loolu mooy suma isaalam yooyu judo tusaddiqa anhum biha xaka anhum biha kasa xaka man xaqaqa hmm. maanaam nii ma ko nettali rek nee na ni la ko Abdurahman waxe kasaa nii rek xakaa la ko nettile man ka nga xam ne xaqaqa dëggal na kon tooñaange ci wàllu alal moom noonu la ko leerale moom mi ngi fi dund nga jox ko ko nekku fi nga jox ko njabootam gisoo njabootam nga sar xel ko ko uhm, mu jàll nag ci li nga xam ne mooy tooñaange yi loo teg ci deram nga xam ne ay kàddu la moom la naan wa yastaxillu kulla ardin akala بغيبة أو قصف أو شتم جلا إن كان حاضرا وأما إن فقد فليكثرا غيرا لعله يجد شيئا يؤدي حق كلهم به مستغفرا وليرجو عفر به وأنا دقنينا ويستحل نساكو دقنال نساكو يبنال كل عرض ببدر أكل بوخم ليكون نكو بغيبة تساو بس أكجو أو قشن ولا قصتاتي aw chatmin wala aw ŋàññi jëlaawoo feeñ na lépp loo xam ne nag danga nga koo tegoon ci deru doomu aadama ci wax ju ñaaw na ko saakoo moom itam jéem a yéwénal li mu misaal ko ci lekk nag naan kulla ardin akala alquran moom moo waxe noonu sun boroom moo njëkk jël li ñuy wax jëw misaal ko ci lekk doomu aadama ayuxibu ahadukum wa ay yakula laxma aqihi mayitan la alquran wax teg ci ne fa karixtumoo na yéen ko bañ ndax kenn ci yéen bëgg naa fekk mbokkam mu dee muy dagg ndawalam di lekk ëpp naa def loolu kenn bëgg ko alxuraan nag dafa misaal ne jiw noonu rek la mel jiw boo jiw doomu aadama di wax ci moom la ñaaw yaa kuy dagg yàpp yaramam di lekk yéen a yam at maanaam la nga def ñaawe ne noonu moo tax muy waxee noonu naan wa yastaxil kulla ardin bépp der boo xam ne akala lekkoon na ko bi xiibatin ci sa bés jëw aw xasfin wala xastaate aw chatmin wala ŋaañi jalaawu feeñ na nee na képp ko loo koo waxoon la ñaaw rek moom it dañu bëgg loola nga dem jéggalu ko ko delloo àqi ñaa ngay kàddu mooy jéggalu ko jéggalu ko jëw nag mooy ngay wax ci nit ki loo xam ne moom bu ko déggoon du ko neex lépp loo xam ne daal yaa ngi koy wax nit rek te bu ko déggoon du ko neex moom loolu jëw la safaan bi nag lañ tagg safaan bi mooy nit ki fa mu nekkul nga wax ci moom loo xam ne lu rafet la nga seeral ko lu rafet wax ci moom lu rafet la nga xam daal loolu lañ tàgg waaye nag wax ci moom lu ñaaw loo xam ne bu ko déggoon daf koy naqari loolu mooy jëw nit ñi nag léeg-léeg ñu naan man fi ne bu fi teewoon it nii ma ko waxee rek laa koy waxee waaw ah, man moom li ma jëwuma ko bu fi teewoon it nii rek laa koy waxee nii déedéet maanaam loolu sax lañ gën a bañ nii loolu nga naan bu fi teewoon nga wax ko sax fi mu ne mu teew fi nga wax ko loolu lañ gën a tee bañ ndax bu waa da ngeen romb foofu dangeen romb foofu am na loolu nit du mën a toog di déglu ñu ko koy wax te deful benn réaction kon mu toog nga di ko wax sax lañ gën a bañ waaw ah, donte sax la ngay wax ak dëgg la itam rek waroo ko gannaaw di ko wax moo tax loolu moom mooy jëw rek waaw jëw nag lu bon a bon la ndax wax nañ ne fanweeri njaalo benn jëw ko gën a bon te njaaloo moom xam ngeen ko mooy felesu doomi jàmbur mu daal di ëmb te maanaam mayuñ la ko woon muy sa soxna loolu gis ngeen ne ku ko def ah, ñëpp lay ŋàññi daat koy garaawal lool lu nekk rek danañ ko ca wax te fekk maanaam fanweeram benn jëwa ko gën a bon ah, fanweeram rek benn jëwa ko gën a bon te jëw moom da nga koy def ba mel ni mel ni defoo dara mel na rek defoo dara hmm. alxuraan moom lu mu àddu rek lu lu lu yitteel la te alxuraan dafa junj lu mel noonu jëw baaxul. kon ki nga xam ne da waxoon ci kàddu yu ñaaw moom it dañuy bëgg nga jéggalu ko su fekkee la nga ko waxoon dafa ñaaw nag ba niixut a jaaraat ndax xañ na boo ci jaaraatee bu yëgee ni lii nga waxoon ci moom rek dana ko naqari naqari goo xam ne sax dootu la mën a jéggal ndax da yëg ni yàq nga deram loolu boobaa mën nga jaa bañ a tudd ca la nga ko waxoon mën nga ko wax rek dama mën a tooñ te xam naa ne yaa ci raw bu yowoo rek jéggal ma baal ma àq waaw baal ma àq daal jéggal ma ci lépp rek loo xam ne wax nañ ko ci lu waxul jëm ci yow wala ñu def ko jéggalu ko rek te bañ a tudd la nga def dëgg-dëgg ginnaaw boo ko waxee mu jeqi fin na aw xasfin wala xastaate mooy nga xas ko wax ci moom la ñaaw aw chatmin wala nga ŋàññi ko yooyu yëpp daal dañ koy bañ doomu aadama yi nag mën nañ ko lool fi mu ne ñu jamono bind moom daanaka rek mooy mooy li ñuy li ñuy li ñuy neexal seen jataay wax ci nit loo xam ne dara du du la ca leer rek wala ngay wax ci moom loo xam ne tey ku ko waxoon ceew rek mu daal di lay metti yii nag nee na ku ci jëflanteek doomu aadama dara rek ci àqi tooñaange yi nga xam ne kàddu la ci la bokk loo teg ci deru nit moom nag lay jàngale moom it àq jooju nan nga koy delloo mu ne inkaana bu nekkee daal xaadirin di aji teew danga ko delloo mooy toog ne ko jéggalu ma jéggalu ko ne ko jéggal ma baaloo ko àq ci lépp loo ko mas a wax ci lu dul noonu ngir mu jéggal la wa amma in fuqid buñ ko ñàkkee nag mooy nekkatu fi dundatul wala xamatoo ci moom lenn nag foofu sëriñ bi def ne fal yukthiran na jiima baril rek xayran aw yiw laalahu ndax xañ na moom yay jidd mu am shay an dara loo xam ne mu am dara ci aw yiw loo xam ne yu addi dana ci mën a jooxe mooy dana ci mën a fay xaq kullihim àqi képp ci ñoom bii ci jëfam jooju xam nga wàllu alal moom mooy li nga xam ne bu fa nekku dañ naa la jox ko ak njabootam buñ fa nekku ñu ne na nga ko ko sarxeel waaye rek li nga xam ne da nga koo teg cib deram moom moom rek nga ko mën a jëflanteel moo bu yàlla dogalee mu faatu rek loolu doonul looy fay looy waxante mbokkam di leen ko jéggalu ndax loolu sa digganteeg moom la te moom génn na àdduna te benn rendez-vous ngeen am bu ngeen di dajawaat ëllëg lay doon ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala te foofu wax nañ ne jaam bu ne dana fa yittiwu aw yiw yittiwoo koo xam ne dana jafe kenn yoreel ko àq mu di la ko jéggal moo tax sëriñ bi foofu benn laabire bi mu fi indil rek mooy ginnaaw wax nga ci moom lu ñaaw te na faatu kooku jëflanteek moom faat na la seenu daje ëllëg la te day soxla li ko yoreel kon nag nee na foofu moom pexe mi mooy nga jéem a baril aw yiw gën a yokk say jëf yu baax ngir nga bari aw yiw ba am ci yiw loo xam ne ëllëg dañ ci mën a fay say àq ci mbooleem ñi nga yoreel àq ba noppi mën caa dese loo xam ne dañ ci mën a mucc mën caa dugg aljanna moo tax mu ne fal yukk saran ne jii ma baril xayran aw yiw laalahu ndax xañ na moom yey mu am shay an dara loo xam ne yu at dii dana ci mën a euh, yu at dii dana ci mën a fay xaq kullihim àq yi mboolem ñooñu ma yoreel àq bii ci moom su ko defee itam mustaxfiran muy aji sàkku njéggal nag ci suñu borom mustaxfiran mooy mu boole ci jéggul yàlla bu baax wala yarju te yaakaar it enfara bii njégalu boroomam ndax day def ne saa boo tooñee sa moroom rek tooñ nga sa boroom bi nga tooñee sa moroom rek nga tooñ sa boroom ndax sa boroom daf laa digee woon nga bañ a tooñ waaw yàlla def na la woon bul tooñ kon boo tooñee tooñ nga ki nga tooñ waaye tooñ nga it yàlla moom mi la tere woon tooñ moo tax fi ne saa boo tooñee doomu aadama da nga ko jéggalu waaye war ngaa jéggalu sa boroom it ci tooñaa ngi googu nga xam ne def nga ko tam tere woon la ko moo tax ma ne mustaxfiran mu boole ci jéggulu boromam bu baax nag waaye wal yarju na yaakaar it afu rabbi njéggulul boromam te nga am yaakaar ci yàlla ci ne dana la jéggal sëriñ bi jàll nag ba tey di leeral rek ci li nga xam ne moom lañ taamu ci ab jullit mu ne war na ci ab jullit xifduhu ak wattoom al lisaana làmmiñ wa min faxshain ci aw ñaawteef nee na ab jullit war naa wattu aw làmmiñam bu di ca wax lenn lu ñaaw wa min qabihil xawli ak jépp wax ju bon wa min qabihil xawli ak bay boni wax wax ju bon jone nee ab jullit war na koo moytandiku wal miraay ak werante ab jullit war naa moytu sàmm aw làmmiñam bu du ci wax lu ñaaw du ci wax tam lenn lu bon du ci dem dëkke werante wara nag leera lan mooy qabihil xawli al qawlu al qabih ci boppam mooy lan mu ne xaw li dëgg-dëgg wax ji nag alqabin ji aji bon bu ñu nee nga moytu wax ju bon xamal rek kullama mooy lépp loo xam ne tàkkuun da nga nekk saa xayaa indi boroomu kersewu minhu ci moom fan la mën a nga xam ne lépp loo xam ne boo ko waxee wëlbatiku yam ci kilifa da nga am kerse rek xamal na loolu ci wax ju bon la bokk yépp wax joo xam ne boo ko waxee wëlbatiku mën caa am kerse kat di rëccu la nga ko wax rek xamal na loolu wax ju ñaaw la wax ju bon la joo xam ne ëppoon naa wax xaqiqatul xaw li dëggi wax alqabian ji aji bon kullama mooy lépp loo xam ne takkuunu da nga nekk saa xayaa indi boroomu kersawu minhu ci moom fanga la mën a nga xam mooy xamal ne loolu ci wax ju ñaaw ci la bokk nit léeg-léeg mu toog di wax rek am yu wax waaye bu gestoo rek yam ci kilifa baa kum jox cër rek nga daal di am kersa ci loolu mu wax mu dikku ndax xam ne loolu du wax joo xam ne war na koo wax nga xam ne xañ na ba mu toogee ki moromam rek mu woyof na ci moom jàpp ne dara war na ko mën a wax waaye ba mu siggee yem ci kilifa baa ku mu am na ca kersa kon xam ne loolu du wax ju baax loolu daa war na fexe ba yemale ci nag kilifa toog ak kilifa ñàkk toog a ca yem waaw xam nga léeg rek nit tudd waa waajuri jàmbur am nu mu ko tudd daal di am lu ca teg waaw xam nga loolu léeg nit def ko te wax ju ñaaw la joo xam ne ñaare boo ko defee yem ci mag rek wala kilifa da nga xam ne li nga def ci kanamam baaxut te loolu kon su boobaa wax ju ñaaw la. mooy lu mel ni ay saaga yooyu xam nga yooyu ëpp naa def ci wax ju ban ci la bokk tudd waajuru jàmbur te ci lu rafetut loolu loolu kenn waru koo def mm. mu ne nag wa jawusoo daganal nañ tasriixahu ak leeralam indal bali di fas aji gàtt xel ja inkaana nem nekk na di koo xam ne laa yafahamu du dégg talwiixaan ab junj yu fiitu boobu dana jariñ ne léeg nag nga dégg nit wax baat boo xam ne day mel ne desinaa tegginu waaye su boobaa bu dee ngànt ko waral danañ ko ko may misaal ane mooy nee na mën ngay wax ak koo xam ne xelam daa gàtt la nga koy misaal di ko junj am na neen noo koy waxee ngir mu gën a tegginu moom waxin woowu mënu koo comprendre maanaam amul faamu ci li nga wax subaa yoon dalay may na nga xàppati tudd la nga bëgg wax ngir moom mu xam ko ci misaal man ngay jàngal nit war a tudd ab sawukaay daal koy misaal ni ko nit ñi misaale ci waxin yi gën a tegginu rek waaw léeg nga bëgg a wax mm. sawukaayu góor daani ne awra tudd xawra rek tudd ko baatu xawra rek te xamu ko wala nga tudd sax baatu zakara te xamul baat bi ci arab lan lay tekki wala nga bëgg a wax sawukaayu jigéen tudd wax am pay te xamu ko waxin yooyu ah mu mel ni daal moom tëyu ko maanaam tey tey loolu daa xamut carrément li nga wax tey danga koy jàngal wala mu am lu laaj nga am loo koy leeral loolu nag moo leen yóbbu ci kàddu yooyu ngeen war koo wax. su ko defee nag baat yi nga jëfandikoo te mënu koo xam subaa dañ la may nga xàppati tudd la nga bëgg a wax euh, ci anam goo xam dana ko leer nañ ne lii nga bëgg a wax te baat boobee duñ ko jàppe lu ñaaw su boobaa ci yow mm-hmm. kon su boobaa lool da nga ko sañ da nga ko sañ a tudd baat na nga ko bëgg tuddee ngir mu xam ko te du ñaaw ci yow mooy wajjawasoo daganal nañ tasirixahu ak leeralam indal balidi fas aji gàtt xel inkaana ni mu nekk na di koo xam ne laa du dégg talwiyaan ab junj yu fiidu bopp dana jariñ hmm. allah sëriñ bi mi ngi ciy tegaat lan mooy dëgg-dëgg werante hmm. daa waxoon na nga wax ju bon ak werante leeral lan mooy wax ju bon ci bi mu waxee ne xaqiqatul qawlil qabii kullama takunu minhu sa xayaain faalama li ñuy wax almiraaw muy werante it daf koo bëgg a leeral loolu moom it leeral na ko ci ñaari bayt yi ci suñ kanam حقيقة المراء عند من درى جهود حق بعد ما قد ظهر ودفعه بباطل هو وبأس لكره خفض الجاه عند الناس إن شاء الله dikkaatee rek tàmbale ci daal di koy leeral jërëjëf